arrêté arrêté wala gis nañ ñu dugal ma si oto bi doole la après par la jàngat rek lu ñu jàngat mooy dégg ngeen léegi léegi ministre de l'intérieur boobu lu mu wax waa jàpp ne naanagul ay garabam bu naanoon ay garabam moom bu taxaw wax lu ministre de la ñu soo yooyu ñëpp ku pare parewul kon xam ku pare ku parewul waa DG bu ñu déposé liste yi ba pare di nga xam pare ku parewuñ donc ministre de bu taxawee ne opposition parewuñ ça veut dire que déjà ministre de war na ku par ñu koy waxal moom Jean Baptiste Tine na toppatoo wàllu intérêt mu xam ne ab gendarme la mu xam ne c'est un agent assermenté Ousmane Sonko sale boulot bu mu ko bëgg def la ak Diomaye na ko bu mu ko sax jéem a def parce que nous allons rester vigilants nous serons vigilants d'abord pour les élections loolu ba leneen li mooy xoqatal bu ñu ko waxee xoqatal tey laaj jot la démb notre frère Ahmed Suzanne ça ne parce que lan fii ay góor ñoo fi nekk fii ay góor ñoo fi nekk fii ay gàmm ñoo fi fii ragal nekku fi une plus parce que nag tey di ngeen dispositif sécurité bi fi amul kenn ku mën a taxawaalu côté di poursuivre la fu ñu ko teg pourtant ñun lañ doon wax ay dictateur lañ te pourtant ñun on les laissé la latitude on les laissé ñu wax seen soxla ñu wax seen xalaat ñu wax lu leen neex mais tey lan jàpp nañ ne dañoo tële jàpp nañ ne mënuñu jàpp ne xamuñ fu ñu jëmee mi pour rek ñu ñu mën a gañe législative dañ ko dañ ko dañ ko bëgg a sàcc daf ko ci ay njublam daf ko ci ay tàppale jël ay nit nëbb leen jàng loolu mooy dëgg xalaas nag mooy je m'adresse directement à Bassirou Diomaye Faye du suppléant xaw ma la xaw ma président de la république mu xam ne dëkk bi moom lañ ko moom la dictature que Ousmane Sonko veut veut faire régner dans ce pays là ça ne marchera pas parce que nag fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo fi Aujourd'hui, nous, au niveau de la nouvelle responsabilité du président Amourba, le président Amourba nous a demandé de venir soutenir le camarade Ladjo. Donc, le président Amourba, nous sommes dans Ladjo, nous sommes dans Ladjo, nous sommes dans quelle opposition nous avons faire face à Donc, il faut que la police va ronder, ils vont venir, ils vont faire On va pas arrêter, on va parler. Vous nous tac, nous tac. Vous nous jappez, nous jappez. Comprendre Nous nous nous sommes dans un pays libéral nous sommes dans un pays démocrate duñu duñu arrêté bu la neexee nañ dem jëli seen i seen i police indiwaat loolu mooy loolu mooy wax